Voilà. Bon dimanche. Un partage massif. Voilà, partagez leen massivement comme ça dina permettre ñu mën a am euh, gars yi en ligne et que allah allahu rabbi ñu mën a jàllale message bi comme ni mu waree comme toujours jàmm di ko ñaanal mboolem jullit voilà <clears throat> waaw partagez leen massivement léegi nag euh, gars yi dama bëgg a ñëw comme ni ma koy defee toujours rek indi tuuti leeral ci li nga xam ne moom la ñuy def euh, ndax ñun come here come here put this don't lose it ok parfait voilà Umar Ndiaye mu ne yow dama la soxla macha allah <laughs> nuyu naa la Seydina Ousmane Tunkara xalifa si ñu ngi leen di ziyaare wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gars yi ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay ñu bari nag fan yii ñu ngi ma doon wax nee nañu dafa am suñu benn mbokk euh, euh, defe naa lan euh, bu génn àddina donc. gis nañu ñu bari di ci àddu euh, gisuñu nga àddu ci te gëm nañu ne jeune bi patriote la voilà nanga man leen xam nga dafa am loo xam ne comme niñ koy waxee toujours euh, bu ci ñi am xam-xam yépp waxee ba pare je pense que c'est pas ce n'est même plus nécessaire que ñun ñu àddu ci voilà mais nag pour jottali rek c'est pas xam nga ñi il faut nga am loo xam ne dang nga ko comprendre charia dafa am lu tudd charia comme l'islam tey comme ni mu amee ay cëram noonu la christianisme amee ay cëram noonu la judaïsme amee ay cëram euh, yàlla nag wax nañu ne déjà pour nga nekk jullit bu baax il faut nga respecter yeneen diine yale ak seen téere yëpp maanaam Euh, defe naa ci aaya yu mujj ci alquran ñaari aaya yu mujj ci baqara mooy amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muminun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qaalu samina wa ataana gufranaka rabbana wa ilayka almasir donc defe naa loolu déjà am na luñ ci wax euh, pour ñun euh, l'islam pour nga nekk jullit bu baax il faut d'abord aussi nga reconnaître euh, yeneen livre yi yàlla yeneen téere yi yàlla wàcce ak yeneen euh, yonentam yi mu wàccee il faut nga reconnaître ñooñu parce que boo reconnaîtreul ñooñu doo mën a topp diina bi ni mu waree donc loolu moo tax euh, lu bari daal ñun duñ ci àddu parce que ñi ñu ëpp xam-xam àddu nañ ci mais c'est pour être clair que du mbañeel waaye xam nga déjà nit li mu gëmul munoo ko cee ñaanal xam nga nit li mu gëmul munoo ko cee ñaanal donc euh, dégg naa polémique yi mais je confirme rek ne que koo bokkalul diine mënoo koo ñaanal voilà donc loolu moom il faut ngeen xam ko du mbañeel du mbañeel du ngëneel du mbañeel du xeebeel déedéet dëkkandoo yàlla mi ngi ñuy wax ñu sàmm àqu dëkkandoo waxu la àqu dëkkandoo bi même boo leen bokkul diine même boo leen bokkul diine dangay ngay sàmm àq bi dëkkandoo bi sa diggante dëkkandoo ak dëkkandoo waaye mënuloo nekk jullit ci li la yàlla wax ne la rabbana atina fi duniyal hasana fil akhirati par exemple tey ngay ñaanal néew ci lislaam nga koy ñaanal ci alquranul karim nga ne da ngay ñaanal koo xam ne tamit du du jullit loolu tamit yow contradiction la déjà quoi contradiction la donc loolu jarul xaste jarul saagante jarul waxante lu ñaaw euh, te du mbañeel te du jéppeel ndax jeune boobu ñuy wax man mii bokk na ci jeune idol yi ma am ci euh, euh, côté film bi xam nga tey par exemple boo xoolee mbaro Marodi moomu ñuy wax pot booy boobu ñuy ne pot la man booy bii laa gën a gëm pot te pot defe naa jullit la mais pot tey bu dee woon man ci pot la koy def sànni ko ci géej et pourtant Pod man booy bii moo ma gënal Pod parce que Pod c'est un traître et ce jeune là c'est quelqu'un qui aime son pays ak lu ñu ko mën a waxal ñi ko xam yépp gis nañu ne ay doxinu patriote rek lay def Pod day dem di xaritoo ak ay doomu président yi di leen makro di leen jox ay jigéen ñu leen di tëddee di leen jox ay autorités yi autorité sénégalais yu bari ak Pod xarit lañu daf leen di lijjantil ci xale yi jigéen yi ñëw noonu di def di bindu pour ñu nekk ci cinéma bi ak yooyu Donc, euh, c'est du n'importe quoi. Hein? Donc, euh, pot, bu dee jullit la moom moo moo gën a pour man pot moo gën a nekk euh, mbaam que képp koo xam ne xam nañ ko ci milieu cinéma te pourtant waa ji c'est quelqu'un qui est très normal n'est-ce pas voilà donc foofu du fa so du ma fa yàgg euh, euh, comme ça comme ni ma leen ko waxee mënuma koo ñaanal parce que diine bi différence ci diine waaye nag doomu aadama la bu génn àddina donc xol bi tooy na ci waaye fa laa mën a yem parce que li la diine permettre loolu rek nga mën a def comprendre voilà donc euh, foofu laa mën a yem ci loolu voilà dee moom baaxul ci kenn neexul ci kenn ndax yàlla moo ñu sàkk ñun ñëpp ndeysaan waaye nag charia tamit lu mu wax mënoo koo jéggi donc loolu mooy noonu daal donc euh, tey wax ci diine euh, duñ ci sori mais dinañu wax ci li nga xam ne moom mooy politique gu Sénégal dama bëgg gars yi ngeen partager vidéo bi massivement parce que comme temps yi dañuy gëj live loolu li muy def mooy day nelawal page yi page yi ñu am day nelaw lu bari mais boo leen ko partager di ko partager di ko partager wax lii xew mooy page yi day yeewu du noonu page yi day waat comme ça message bi day jàll yegg fi nga xam ne foofu la war a yegg yëpp voilà da ngeen koy partagé di ko partagé di ko partagé waat voilà loolu rek mooy tax page yi incha allahu rabbi mu yeewuwaat comme ça ñu continuer waat ci lancé bi nga xam ne moom lañu nekkoon. tey damay ñëw ci waxtaan bu ndaw te waxtaan boobu nag li ñuy wax ñun li neex ci suñu mbir yi dañuy denc firnde yi on on garde les choses comme il le faut léegi ma ñëw rek. tegal leen kii nga xam ne moom la ñu tànn am na tey koo xam ne moom mooy maire de Dakar nekk député aussi à l'Assemblée nationale am na kàddu yu mu yëkkati woon jëmale ko ci waajooju nekkoon impôt et domaine te déjà nag man impôt et domaine benn nit laa fa gis bu fa liggéeyee bu yëkkati loxoom te di wut nguuru Sénégal mu ne impôt et domaine liggéey naa fa fukki at ak nàngam te fukki at ak nàngam yooyu musuma fa luubal benn dërëm dama ciy del siwaat de mu ne musuma fa luubal benn dërëm mu ne sax amoon na moment boo xam ne dafa dem maanaam dem euh, defi euh, constat maanaam euh, kii audit fiscal ci benn société banque bu mag ba mu paree presque banque boobu lim ko bindal ci chèque ay milliards la waaye daf ko jël dem dugal ko ci trésor maanaam ci keesu Sénégal kees boo xam ne sénégalais yëpp ñoo koy njariñoo donc waa jooju xam nañ ko moom la ñu jàpp tey ci ay fen nag ndax Sénégal moom niñ ko xamee rek buñ la ragalee xam nga euh, du ma ne sax buñ la ragalee ndax Sénégal benn groupe nit moo ragal Ousmane Sonko mooy les voleurs mais ñi nga xam ne sàcc ñu amee nañu Sénégal dara te fasuñu yéene sàcc te fasuñu yéene toroxal réew mi ñoo ñooñu ragaluñu Ousmane Sonko voilà donc mi ngi mel ni ngay dox ci dëkk di ragal police kii ragal police mooy kii def crime kii commettre ay crime mooy ragal police mais ki dul commettre ay crime kooku ragalul police kooku bu ko neexee police camp police bi nekk ci wetu këram parce qu'il ne commet pas des te loolu moo ñu dal ci président Ousmane Sonko kenn musul gis ku mu ragal kenn mosul gis foo xam ne sens interdit la ci moom fu ko neex ci réew mi lay dugg fu ko neex lay génn Sénégal xawma fa lu bari nag waaye xam naa fa benn ministre boo xam ne billahi wallahi tallahi lazim bi ma gisee këram man sama yaram dafa daw man dama tiit parce que bu dul dara sax éthique éthiquement rek éthique nga nekk homme boo xam ne yow da ngay liggéeyal ay institution maanaam tu es un fonctionnaire d'État nga dëkk ci kër goo xam ne yow ci sa bopp xam nga ne c'est des milliards salaire et vie méngoowul maanaam sa salaire li ngay am yow ak li nga xam ne moom nga ngay ngay ngay dundee méngoowul xam nga Sénégal defoon nañ fi benn erreur bu catastrophique ñu wal ya euh, euh, euh, faluñu mii kër de newuñu Sénégal nañu fal ki gën a noppi waxuñu lool de newuñu Sénégal nañu fal ki gën a taaru waxuñu lool de moo ñu daloon ci Macky Sall yéen ñi ko regretté woon yéen laay waxalaat benn yoon on avait quelqu'un qui s'appelait Macky Sall déglu leen rek ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di waa ju bees ji mooy ñi nga xam ne daf leen jox xaalisam dama leen di wax ngeen xàmmewaat Mati benn pomme et demi booy ba la nekk fële ci itali ak euh, bandi bandi euh, maanaam les les les les mercenaires de la plume et du micro même nit yooyu rek ñoo nekk di promouvoir waa ji sant ba kii nga xam ne moom la ñu tànn ñoom waa APR ne moom la ñu gëm pour mu nekk président en tout cas bi biñ koy tànn dañu xool ki nga xam ne moom la sénégalais yëpp bëgg ñu tëj ko ci biir kaso bi. ñu ne voilà léegi xam nga lu def dañuy jël waa ja xam ne moom moo gën a populaire moom moo gën a moom la ñu gën a bëgg moo gën a jub moo gën a du sàcc. ki fen ki nekk ci xol yëpp dañ koy jël tëj ko ci biir kaso bi après ñu tànn la yow bu ñu demee ay élection ñu sàcc élection yi jox la ndax nag ah kàddu bii dinaa ko yëkkati te dafa baax ñu xam ko euh, sàcc moom am na ñuñ ko xamee Sénégal te ñu aay ci lool nag nguykat am na ñuñ ko xamee de voilà te ñu aay ci lool waaye dama ne na ñu bàyyi xel il faut ñu delloo siwaat suñu xel yi dama leen ne du ma sori ci débat bi de waaye dama ne sénégalais yi delloo siwaat leen seen xel on avait commis cette erreur nit ñëw sàcc huit milliards balaa sax mu yegg au pouvoir ñu ne ko ana huit milliards yi mu ne Ablaye Wade moo ko ko may ñëpp naan fi waa dafa yeru dafa noppi ah diw de du wax diw de boolewul dara ak wax fan lañu toll fan lañ ci toll fi mu ne on est dans une catastrophe totale Sénégal kuy wax dëgg rek te yàlla tax waxuma koo xam ne fay nañ la da nga wax parce que toi tu es un mercenaire du micro waxuma aussi koo xam ne fay nañ la pour nga bind toi tu es un de la plume mais dama ne kuy wax te yàlla tax benn Ousmane Tounkara bu ñu fayul dara ñu ne ko waxal sa diggante ak yàlla te yàlla rek tax xam ngeen ne Macky Sall du président bu baax ce n'est même pas un bon chef de quartier te tey nguuta gi ñu nekk ci àdduna bi yëpp mën naa leen ne Afrique nguuta gi ñu nekk gi gën a rëy te ñu nekk ci tey Macky Sall moo ñu ko yóbbee ak Alassane Ouattara les de papiers de la France te waa ji ñu tànn continuation wu Macky Sall bi gën a grave la parce que bu dee Macky Sall sept milliards la sàccoon balaa muy ñëw ci nguur gi billahi waa ji sàcc na lu ëpp cent milliards balaa muy ñëw ci nguur gi nañu dem ñu déglu ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko bañ koy laaj ci assemblée nationale ba muy wax ci Amadou Ba la loi financière comporte trop de manipulation chiffres chiffrés merci nañu déglu Ousmane Sonko. trop de manipulation de chiffres dans vos différents documents et ça se traduit aujourd'hui par une situation qui fait que sur l'exercice 2017 nous avons accusé un gap de 161 milliards sur les recettes fiscales. Vous ne le démentirez jamais. Et gap-là va vous poursuivre. Et à la du premier trimestre 2018, euh, on est déjà à un gap de 40, pour 40 milliards sur les recettes fiscales. Ensuite, nous avons, et nous l'avons démontré, puisque personnellement j'ai saisi le FMI et je vous en ai fait ampliation, que sur les années passées, vous avez fait un de l'ordre de 216 milliards sur les ressources extérieures. Et C'est extrêmement gravissime. Ça veut dire que tous les chiffres que vous nous donnez, nonobstant votre rengaine habituelle sur les notations ou je ne sais quoi, tous les chiffres sont faux. xam nga lu gën a grave juumuma sax de damay delluwaat tuuti ngeen déglu chiffres yi muy wax deux cent nangam milliards cent soixante dix milliards ak quarante milliards on parle déjà de quatre cent milliards de différence quatre cent milliards xam ngeen luy quatre cent milliards maanaam mën na tabax hôpitaux yi nekk Sénégal yëpp tabax écoles yi nekk Sénégal yëpp yi ñu soxla quatre cent milliards mën na ko c'est extraordinaire ñu demaat ñu continuer déglu président Ousmane Sonko. Et voilà les causes de la difficulté de trésorerie malgré les dénégations. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à une frénésie de l'endettement, 61% sur le PIB. C'est inadmissible pour le Sénégal.

d'avoir annulé la taxe sur les appels entrants. 50 milliards de recettes abandonnées par le président Macky Sall pour respecter une promesse de campagne faite au patronat, particulièrement le patronat français. Le prélèvement sur les compagnies d'assurance. Mais vous mettez une taxe de 1% qui va être encore supportée par le consommateur, alors que vous n'osez pas taxer les forts profits des compagnies d'assurance et les distributions qui sont faites. C'est là où se trouve l'enjeu. Mais vous de faire peser la charge sur les mêmes, cest le pauvre contribuable. Enfin, les prélèvements sur les opérations de consignation. Monsieur le ministre, nous savons que ce prélèvement est taillé sur mesure pour la société de droit suisse qui s'appelle Adax Energy, qui fait l'objet aujourd'hui d'un redressement de milliards fraude fiscale sur ces opérations-là. Et nous suivons de très près l'arbitrage qui est sur votre table, parce que nous savons que cette loi, elle est taillée sur mesure pour cette société. Et voilà que le président Macky de son sommeil de Lyon, décore cette même société de l'ordre national du Les multinationales viennent ici, elles fraudent, elles grugent le, le, le, fisc, mais on les décore après de l'ordre national du Lyon. C'est très bien fait. Et puis, on avance. Et comme d'habitude, parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette société est impliquée dans, la, dans le scandale de la SAR avec les huit navires qui ont été commandés sans passer par le conseil d'administration. milliards. Vous êtes très informés de ce dossier. Et c'est cette société qui est décorée loi spéciale que nos 20 députés vont voter. Il y a une plainte aujourd'hui à Londres et une plainte à, au Sénégal. Notre mm. Assemblée nationale aurait dû s'autosaisir si elle était digne de son nom. Et je sais très bien que le président, notre auguste Assemblée, connaît bien cette société, presque propriétaire de Orix, dont il a été lui-même actionnaire, même s'il se défend d'avoir cédé ses actions depuis 2006. Voilà ce qui se cache derrière cette loi de finance rectificative et comment le Sénégal est géré sous Macky Sall, cest à c'est les amis c'est les intérêts et c'est la famille c'est ça la gestion du Sénégal. voilà kii président Ousmane Sonko moo ko wax cangul layam layamewul kenn porté wu ko plainte li mu wax yëpp leer na te mi ngi ko waxee assemblée nationale bu Sénégal te kenn indiwul démenti pour weddi li mu wax te ci men mennam waajib sant yi la ko wax. judd 1961 te dëkk Parcelles Assainies te dëkk ci këru 2 milliards wala 3 milliards billaay wallaay boo duggee ci kër waa ji sant ba da ngay bàyyi àddina keroog laa fa gis bi mu fa dugalee sëñ Abdou Karim Mbacké te waa ji sant loo te wane bagaasam yi ci internet bi doon ko filmer muy génn ascenseur man dama tiit man j'ai eu peur Ça m'a toujours frappé sur la On a les vidéos, mais ça, ce n'est qu'un lancement. Et on va continuer à fair savoir au Sénégalais quelle est cette personnalité. waxuma la deux pour cent waaye sénégalais yi ñi jot a xam kii ba pare pour cent sax mënu koo am ci ay élection waxatuma la ak te loolu mën naa leen ko firndeel euh, déjà boo leen demee ci fii nga xam ne moom mooy Parcelles Assainies muy fiefam Euh, dinaa leen jox déjà résultat élection yi dinaa leen jox résultat élection yi man nag man bokk naa ci sénégalais yi nga xam ne gëm naa ne xëy na kii Macky la daf ko fi indi rek pour assassiner ko xëy na Macky Sall yabul sénégalais yabel boo xam ne dafa indi fii kii pour fan ko parce que li may gis ci suba ba léegi ay nit di ma ko bindal ñu ne ma grand kii Macky la ci boppam gëmu ko daf ko indi rek pour gaaw ko rey man leen ah et j'espère que c'est le cas parce que bandi moom euh, jël ko indilaat ñu ko ci réew mi ñu toll voilà mi ngi nii je vois ñu ne Amadou Ba a même piégé Macky Sall ñu ne Ronaldo transforme son hôtel voilà nañu dem Amadou Ba n'est pas le candidat de Macky Sall c'est malgré lui que ceux qui savent savent de quoi je parle ñu ne Amadou Ba a acheté tout le régime en sachant que Macky Sall n'est pas avec lui léegi dama bëgg doomu sénégalais yi ngeen bàyyiwaat xel am na ami Amia Nouridine El Bach El Bachir mu ne Amadou Ba c'est le Bazoum du Sénégal en téléchargement il est révolu le temps où imposer au peuple un président choisi par son prédécesseur en empêchant les autres candidats de conquérir dafa am benn nigérien bu ma masa woo bi mu dégloo Macky Sall wax joxe discours am boobu ne du nekk troisième du def troisième candidature mu ne demal nga xool li ko Bazoum bindal Bazoum moo ko njëkk félicité mu ne ko sage décision gis nga Bazoum moomu moom moo tànnoon président Niger bii fa jóge ki nga xam ne tey moom moo jógee euh, euh, Niger ki fa nekk nii mooy Bazoum mais euh, kele beneen président bi waaye nañu ñëwaat nañu ñëwaat ki ko tànnoon donc Amadou Ba moom mooy ki nga xam ne Sénégal yëpp xam nañu ne Macky Sall moo ko tànn pour lan pour continuer sàcc alalu Sénégal bi pour ñu mën a continuer triande sénégalais yi nelawal suñu xel yi pour ñu mën a continuer ñu doo souffrir loo pour continuer ñoo imposer benn gouvernement boo xam ne mais sëñ bi Amadou Ba troisième mandat wu Macky Sall la Amadou Ba ak Macky Sall benn nit mi la Mohamed Youssoufou exactement Mohamed Youssoufou moo tànnoon Bazoum pour doomu aadama yi nga xam ne xamuñu te bam ko tànnee le candidat du peuple ki nga xam ne moom la ñëpp bëggoon l'opposant dañu fexe lépp lu ñu man pour barrer opposant boobu bu mu ñëw au pouvoir lan la réew mi mujje mooy coup d'état bi ngeen di gis nii tey ci Niger sëñ bi amul benn sénégalais bu mën a doxal Sénégal boo xam ne di nga fa defaat beneen at ak jeunesse sénégalaise bu déterminé bii ma gis c'est pas possible amul benn sénégalais muy Amadou Ba ak Massamba Diallo ak Massamba Thiam laa ci yemale amul benn sénégalais surtout mes amis fuutanke nag ndax fuutanke moom Macky Sall yàq na seen réputation d'une manière extraordinaire man ak ni ma gëmee tukkuleer yi ak ni ma gëmee fuutanke waaye bi ma gisee fuutanke yi rangé wu ci ginnaaw Macky Sall ma Sénégal dinañ ñu indil benn problème de jugement Euh, de caractère wala jugement de religion wala jugement d'ethnie parce que Macky Sall la tax na man bu ma déggee fuutanke sax damay wagasaat sama tubéy ba baax ma dem toogi na le malgré je les aime mais xam naa ne pour man Sénégal du amaat du gaaw a amaat président fuutanke ndax Macky ndax ni mu ñëwee def réew mi ne da ko bandum ñu jàpp nit ñi en otage jël suñu institution yëpp teg ay fuutanke ci kaw di jàpp sénégalais yi di leen noot ak dóor boo xoolee tey fu mel ni sûreté urbaine rek baara Sankaré un criminel connu un criminel connu wala nga xool DG de la police ak yeneen ak yeneen wala nga xool baaxum procureur wala nga xool ñeneen ak ñeneen ngay xool nga tànn nga xool tey premier ministre président lépp na da ko bandu yéen ngeen yaakaar ne tey Sénégal boobu parewaat na pour ñu ne ñun dañuy tànn un imbécile un grand voleur connu ñu naan ñu ay dafa yaru ay yaru yaru ci lan xanaa du Macky Sall yaru lañ doon dégg yaru ak mii kër c'est deux choses différentes there is a silent killer and a loud killer ki nekk ci kaw di bam bam bam bam bam bam ki nekk ci suuf di ko rey moo ko gën a grave xanaa xamu leen pistolet silencieux moo gën a grave pistolet bi def bruit parce que pistolet bii def bruit bu dee tëll ñëpp daw mais pistolet silencieux mën na rey cent personnes te kenn du bouger parce que tëf lay def tëf tëf tëf tëf tëf tëf mën na rey cent personnes te kenn du bouger xam ngeen danger bi nekk ci sénégalais yi dof-dof lu fii ba nelaw nelaw lu suñu xel ñu ne waaw yaru na vous êtes malade vous êtes malade mais kooku boo leen ko falee mooy falaat ngeen Bara Sankaré sa criminel commissaire mooy falaat ngeen déjà DG police mooy falaat ngeen baaxum daanaka sax est-ce que dina def remaniement de gouvernement mais c'est c'est c'est de la folie c'est de la folie Amadou Ba Amadou lan non les sénégalais yeewu leen ñun kan la ñu def ñun musuñoo def li ma neex ci Sénégal rek mooy ñun musuñoo def musuñoo per suñuy xel gars yi partagé leen vidéo bi parce que comme ni ma leen ko waxee comme page bi day nelaw lu yàgg boo leen ko partagé wul du gaaw a jóg donc da ngeen koy partagé pour mu jog parce que ñu bari dañ may ne duñu jot signal comme duñu jot euh, kii bi quoi signal bi donc partagé leen ko massivement ban dof ngeen yaakaar ne ñun la ñu dof ba ñun ñu war a jóge ci makki sal ne ñun dañuy fal Amadou Ba mais ça c'est la catastrophe la plus pure de l'histoire du Sénégal loolu buñ ko defee billahi wallahi tallahi lazim ngeen defee na sénégalais yaa ngi dee ci géej gi déedéet ci biir réew mi ci boppam la sénégalais yi di commencé na def nii ci suuf si nga leen foo jëm ñu ne la Nicaragua c'est grave mon pays va très mal Amadou Ba n'est pas une option Amadou Ba xalaat ko sax danger la un des plus grands voleurs un des plus grands manipulateur de l'histoire du senegal du wax dara day jënd ñëpp Il achète tout le monde. Yep. Il des milliards et des milliards et des milliards. te mi ngi jënd képp ku mu man man ta gañe ay élection loolu kenn waxu ko waaye man naa def lépp lu mu man pour ñu dugal ko ci rek pour mu sàcc élection yi gars yi voilà donc maa ngi gis benn nit bu bind il signale waaw c'est c'est très possible parce que ñun dañuy ragal suñu ay kaddu ndax ñun bu ñu yëkkatee ay kaddu xam nañ ne sénégalais yi dañuy déglu partagez leen massivement comme un Bams Djigo waa ji ngeen gis BMS Djigo mii kii Amérique la nekk kii fenn la nekk fii soriwul est-ce que nekkul Columbus Ohio net da ko bandum li muy ree yëpp foo ko gisee ci laaj bi day ree rek nii lay def MS nii rek lay def mais sëñ bi ñun mënuñoo def boobu erreur yàlla bañeewuñu noonu yàlla ba mu indee réseaux sociaux ci Sénégal yàlla indil ñu ay chaînes yu jub ndax nag fu juba di am jub am na fa fu juba di am rek jub am na fa on ne peut pas faire ces erreurs démb maa ngi wax ak sama benn xarit ma ne ko sëñ euh, gars yi pare nañu pour ñu falaat suñu beneen mbokk tukkuleer bu ne ma non bu laal ethnie ma ne leen man ndoxuma ci loolu Macky Sall a ethnicisé notre pays Macky Sall a presque créé une guerre civile au Sénégal yàllaa ñu dimbali rek tu vois des gens comme Aliou Dembourou Sow ki vient qui te disent que menen ko njaasi men ƴettata si Macky Sall yahi men ƴetta Ablaye Daouda Diallo parce que déjà bu leen fàtte ne gars yi dañu tas ci ñetti pàcc Amadou Ba la Macky Sall jël waaye Mamboy Diawo mi ngi ci côté bi moom it ak ay nitam Aly Ngouille Ndiaye moom it mi ngi ci côté ba ak ay nitam Abdoulaye Daouda Diallo moom it moom it ak ay lobbyam ñoom it ñu ngi koy préparé parce que nee nañu comme Macky Sall moom ak dégâts yi mu def yëpp ci réew mi man naa nekk président du Sénégal donc Mariama Diobé Diallo sax mën naa nekk président du Sénégal Sénégal c'est devenu du n'importe quoi te comme mën nañoo jàpp doomu sénégalais bu set bu musul sàcc dërëm ñu teg ko ci biir kaso bi ci ay fen te sénégalais yi di toog di seetaan kon xam nga lu ñuy def mën nañoo continuer rek di doxal ba yàlla def Sénégal takk comme ni yeneen réew yi yëpp takkee parce que loolu mooy am parce que du moment où ñoom ñu yaakaar ne mën nañoo jàpp doomu jàmbur bii muy président Ousmane Sonko ku sàccul fenul tooñul nga jàpp ko tëj ko ci biir ay kaso parce que daf la neex nga ne non c'est le choix de la population je vais le mettre en prison mais tu sais que en guerre avec cette population te saa bu nguur nekkee en guerre avec population lu muy juddu lu muy jur mooy guerre civile Ousmane Sonko bu nekkoon candidat ci Sénégal Sénégal manta am jàmm loolu ku leen ko wax daf leen di nax parce que imaginel ñi bañ Macky Sall yëpp ñi bëggul jubadi yëpp ñi bañ injustice yëpp ñu jékki-jékki rek fet déclenché xam nga affaire bi moom ñi yàkkamti ñoo yàkkamti rek mais c'est le déclic déclic baa ngi ñëw ñi ñoo yàkkamti mais sinon lii déclenché combat bi Sénégal mi ngi ñëw soriwul li koy déclenché soriwul ah parce que nag mënuñoo bokk ab réew ñun ñëpp ñu toog si yow maa ngi yow ñu yem ci sa maam lim ci am la sama maam am sa baay lim ci am la sama baay am yow nga toog ci réew moomu nga ne non man dinaa continuer doxal continuer manipuler ku ma neexul ma jàppale tëj la ci biir kaso bi te moomoo réew mi sa ndey moomu ko sa baay moomu ko nga ne loolu kenn du ci wax dara ça c'est une erreur catastrophique loolu du am il faut que ñu xam ne président Ousmane Sonko c'est le majoritaire au Sénégal by far force reste au peuple résistons il faut ngeen xam ne le président Ousmane Sonko, c'est le choix inédit, c'est le choix indisputable du Sénégal. te ñun ñi ko faral yépp di jël suñu alal di jël suñu coono di jël suñu temps di jël suñu man-man di ko ci def. waaye quand di dis manipulation. ils veulent nous manipuler ñi nga xam ne ñoom ñooy génn di wax waaw Amadou Ba moo fi yaru Amadou Ba six mooy neuf Amadou Ba ak Macky Sall leur seule différence mooy kii dafa sant Ba kii sant Sall mais même xalaat bi lañu am même doxali nii lañu am kële moo ko dàq sàcc rek kële moo Ba moo ëpp Macky Sall fit ci sàcc moom du wax il ne parle pas moom il agit moom il agit il faut ngeen xam ne président Ousmane Sonko boo leen ko bàyyiwul déjà lii dal Macky Sall bu ñëwee Amérique dina leen apprendre à une leçon catastrophique mais amul benn moyen boo xam ne di ngeen ko gouverner réew mi parce que nit mënul nekk président légitim ci Sénégal te jàkkaarloowuloo ak président Ousmane Sonko nga duma ko ci ay élection c'est pas possible te mënuloo gouverner Sénégal avec euh, un support de deux pour cent pour cent mooy les délinquants les voleur les bandits les manipulateurs les le les les les les nu mu tuddati les les mais Amadou Ba c'était tout sauf ñun xam nañu Sénégal nañu dem ñu déglu euh, euh, Blaise Dia euh, Blaise kii waay Blaise Diaz nañu dem déglu Blaise Diaz ah nañu dem déglu aimer et partager massivement gars yi aimer et partager la page massivement live bi day am comme ni ma leen ko waxee bu ñu gëjee mu am ay sabotage page yi yéex partagé massivement pour nit ñi mën cee jot léegi ma ñëw ma indil leen li nga xam ne moom la waa ji jaaz wax bismillah ñu déglu. su leen neexee ñu candidat ñu dem jàkkaarloo ñu am jël wante Amadou Ba bés bu tegee candidat personnellement man dinaa yee askanu Dakar je vais parler au peuple de Dakar pour vous dire que vous ne méritez pas un voleur et un traître mun nañ jël seen suuf tong tongi ko saax saaxe ko bu ci des. ba Khalifa Sall nekkoon maire de Dakar di lu di liggéey ba Dakar dem ba mu dem lijjantil Dakar emprunt obligataire kan ko xañ askanu Dakar du Amadou Ba du Amadou Ba il a poignardé le peuple de Dakar tey muy taxaw fii nekk am na sañ-sañ day wuti mairie de Dakar kooku du sax moom ak waa APR kooku moom ak ñun la bañ ko dul seetaan maintenant nag mën ngeen indi euh, suma mag Diouf Sarr ngeen indi suma rakk Abdou Karim Fofana ngeen indi ku mu doon ñu xam ne lii mooy élection démocratie dañu toog ñu waxtaan ñu defante ko ak gaañ yi ku ku ku ku yàlla may ndam ñu nangu ñu xam ne yow la yàlla may ndam mais nag ñu toog di seetaan ku sax-saxi suñu suñu suñu suñu Dakar bi tong-tongi suñu suuf xam ñu emprunt obligataire mën mm. naa continuer parce que gis nga mairie Dakar dafa am lu ñuy woy des rôles d'impôt rôle d'impôt mooy ci gàttal da ngay toog par exemple ñu def ay prévisions ñu ne par exemple Dubai Port World lii la nga fay ville de Dakar ci ñu ne par exemple Dubai Port World noonu la fay ville de Dakar huit milliards u impôt mais ministre des finances moom kese su ko neexee jël bi ak fay ne non maintenant un milliard la. Amadou Ba su ko neexee tamit mën nañ ko wax ñaata ñaata euh, dégrèvement fiscaux la jot a def fii ñu won ko lépp lu mu xañ askanu Dakar kooku nag su foog ne ni que tey lu mu daal di di di di di dajale moo xam nu mu ko dajale loolu lay ñëw tey pour exploiter la misère du peuple de Dakar. il se trompe lourdement xaalisam moom su ma baat ci ko waa Dakar laay waxal fu mu ñëw na ngeen ko lekk seen alal la wante nekk leen ñëpp waa ji du waaj gars yi jéggal ma waaye ah ñuy woote baal leen ma su leen neexee ñu kat kooku nag su foog ne ni que tey lu mu dal di di di di di dajale moo xam nu ko dajale loolu lay ñëw tey pour exploiter la misère du peuple de Dakar il se trompe lourdement xaalisam moom su ma bàcc ko waa Dakar laay waxal fu mu ñëw ne ngeen ko lekk seen alal la wante nekk leen ñit te yéen dégg ngeen daaj waaji du waaji jaaykatu suuf la jaaykatu suuf la moo leen xañ seen emprunt obligataire lu may wax ni su amut c'est une personnalité biir Sénégal il saisit le procureur de la République pour diffamation et pour et pourtant je pense mairie moo ci gën a ndaw ndax am na sax ñu ne euh, en tout cas d'après des observateurs et tout moom sax bokk na ci ñi nga xam ne fas yéene nañoo jàmma jàkkaarloo en ak euh, njiitum réew mi di président Macky Sall. Ah, wax dëgg yàlla nag moom moom yaakaar naa ne wa man nag am na ay xeetu nit bés bu ñu nekkee président du Sénégal man danaa génn Sénégal balaa ñu may jaay parce que ñoom suñu paree jaay suuf si lu ci des mooy jaay nit su leen neexee ñu kat c'est une personnalité biir Sénégal il saisit le procureur de la République pour diffamation Et, pour, et, et pourtant je pense mairie bu moo ci gën a ndaw am na sax ñu ne euh, en tout cas. Euh, waay vaar waay. waay waay waay moom laal loo sama kii bi fii voilà. su leen neexee ñu. Euh, Sénégal il saisit le procureur de la République pour diffamation et, pour, et, pourtant je pense mais bu moo ci gën a ndaw ndax am na sax ñu ne euh, en tout cas d'après les observateurs et tout moom sax bokk na ci ñi nga xam ne fas yéene jàkkaarloo en 2024 ak euh, njiitum réew mi di président Macky Sall wax dëgg yàlla nag moom moom yaakaar naa ne. wax dëgg yàlla nag wa wa naaj bëgguma fa egg wante bés bu ma am na ay xeetu ñit bés bu ñu nekkee président du Sénégal man naa génn Sénégal balaa ñu may jaay parce que ñoom suñu paree jaay suuf si lu ci des mooy jaay nit ñi rek te man booba man man wax dëgg yàlla man kat ma jaay parce que mën naa jur monte esclavage jeex na ñoom lu ñu am ci alal tey nag il faut il faut regarder le parcours de ces gens il faut le regarder il faut regarder le parcours de ces gens il faut qu'on se respecte des fonctionnaires qui sont multimilliardaires kenn xamatul lu ñu am ci alal ci fonctionnaire du ndono bu jóge ci ndey du ndono bu jóge ci baay nga foog ne ni tey da ngay ñëw taxaw suñu kanam dañu nekk da nga ñuy jiite fan ngay jaar. waxuma lii de lii Sénégal yéen a ko déggandoo lii copain am moo ko wax voilà xam nga lii xam nga tey bu doon man maa wax lii ñu ne voilà daf ko bañ Ousmane Tounkara voilà da ngeen bañ suñu kan non non non un fonctionnaire qui travaille aux impôts et domaines son patrimoine est plus de cent milliards man maa leen lii man maa leen wax lii man patrimoine u Amadou Ba c'est plus de cent milliards de francs CFA li mu yor ci xaalis dafa tiitlu dafa kéemaane ça fait peur donc gars ba yeewu leen éveillons-nous come on let's wake un fonctionnaire qui a cent milliards dans la banque un fonctionnaire cent milliards de français ça va nañu continuer encore mobilisation dans la diaspora encore le 18 ak le 19 bi nee nañu leen mobilisation bi gën a mag dans l'histoire de la diaspora parce que li ñu nar yëpp billahi bés bu dalee ci kaw Macky Sall Amadou Ba ci boppam day reculer fa mu toog lay jonkon di wëccu ñu ne ko Amadou xew ma ne damaa biir maa leen wax lii gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ne nañu continuer combat bi sa combat vient seulement que de commencer ñun ñoo leen gën a endurant léegi nag dama leen di tàggoo vidéo bii ndax euh, pour ñu ñu bëgg nelaw loo waaw sport waaw xale yi bàyyi leen sonkori non nous allons sonkoriser le pays en le démaquillant Nelson Mandela bi mu bëggee dajale Afrique du Sud il l'a fait avec la sport sport la utiliser donc xale yi yéenay dem ci stade yi yokk leen fa Sonko bi na xorom si yokk na poobar bi yokk na kaani bi yokk sonkorisons le pays en le démaquillant voilà. nga ñu dem. has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than governments. Sénégal bi ñu gañee Coupe d'Afrique bi gis ngeen ñaata nit ñoo génn ci mbedd mi ñoom xam nañu doole sport xam nañu doole stade yi Sénégal Algérie mi ngi ñëw toj leen stade bi jënd leen seeni ay billets ngeen dem rajaxe stade bi rajax fépp foo leen dem ci sport venue boo leen dem rajaxe leen ko rajax nii la rek fépp fu ñu dem rek nañu Macky Sall dégg mën nañ koo def ci ay kurpeñ mën nañ koo def ci ay kallaama wax nañ leen ko même ci hadis bi loolu la hadis ba mu ne lépp loo gis ñu koy teg sa sa population boo ko mënee dindi ak sa loxo nga dindi ko ak sa loxo boo ko mënta dindi ak sa loxo nga dindi ko ak sa làmmiñ boo ko mënta dindi ak sa làmmiñ nga naqarlu ko sa biir xol nañu génn nañu génn massivement continuer xeex ak Macky Sall ci bépp moyen bu ñu yàlla jox incha allah yéen waa Amérique nag pare leen Macky Sall avertir nañ ko il va il passe à la vitesse supérieure nous passons à la vitesse hyper supérieure newoon nañ ko sonko bu desee sa kër gi ba léegi incha allahu rabbi buñ la tegoon benn problème dinañ la teg trois mille cinq cent problème donc Macky Sall na xam loolu gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu peace